الصبر ولله الحمد illa laa ilaha illa allah allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi xalaqa alxalqa wa jaala minhum rusula واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن إمام الله إلى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى أهلكم موجبه أشعركم ب وأسأل عن حالكم ودياركم wa uusikum bil ijtihaadi fi taa'ati llahi wa rasulih wa ta'kiidi imaanikum wa ta'aamalu xayr wa taxaabu inna diina nasiha amma nasihatu fa hiya an tansaha lillah wa li rasul aimati diin wa li ammati lmuslimin wa nasihatu lillahi an tuwaxidah wa taamala bima amar وتترك عما نهى وتأمر الناس بذلك والنصيحة لرسوله أن تؤمن به وتصدقه وتتبعه فيما أمر وتترك وتعمل بسنته والنصيحة لكتابه أن تقرأه وتتلوه وتعمل بما فيه والنصيحة لأئمة الدين أن تحبهم جميعا وتتبعهم وأن تعينهم على أمر الدين wa ta'muru an-naasa المسلمين أن تحبهم جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمنين ولا يبغض أحدا منهم وكما قال صلى الله عليه وسلم حقيقة المؤمن أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا wa ta'aamaru bil xayr wa tanaahu ani shar wa aslihu bayna an tajcalu baynakum almahabba fa inna ahla aljannati yataxaabuun wala tajcalu baynakum alaadaawata walbaxdaa antum kuntum ixwaana yaclamu anna almumina axu min kama qaala taala innama almuminuuna ixwa wattaqullah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana canta ñaar yàlla mi nga xam moo bind mbindeef yi dellu def ci seen biir ay yonent dellu def ko mooy gën tedd yonent tey gën ji mbindeef dellu def xeetam wa muy gën yàlla na dotteeku ci moom sallallahu alayhi wa ak ñoñam ya ak saabaam mboole seen ginnaaw loolu tukkee ne ci ilimaan yàlla ja seydina limaamu mahdi muntazar alayhi salaatu wasalaam may dem ba di tey ilaa jami ay talaamisi jëm ci mbooleem ay taalubeem wal muminina ak ñanga ñépp laa masale muy góor ñi ak jigéen ña mag ña ak njaw ña mu ne jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na dotteeku ci yéen ak seen njaboot seenu ñoñ seydina limaam alayhi salaatu wasalaam wax na ne li waral xutba yi may wax ak yéen mooy ne maa ngi leen di yëgal ne man de maa ngi leen di nuyu di laaj seeni mbir di laaj seeni yiw ak seen jàmm ak seeni kër kooku mat na sàmm ndax yooyu muy laaj ab sàmm bu mat sëkk moom moo koy laaj la muy sàmm ndax lu ci ne lum ñu laaj lu ci ne moom xamal nañu ne ëllë sa suñu boroom dinañu taxawal di ñu càmbar sa di seet ca nañu ci yàlla digle woon mu yiw wi ñu di yiwu àddina luñ ca def jàmm ji ñuy am fii ci àddina lu ñu ca def sunuy kër yi yàlla moomale woon looloo tax mu ñu koy laaj ngir ñu teel bàyyi xel yooyu te xam ne ëllëg yawmal qiyaam laaj yooyu dina baamtuwaat di ñëwaat kon mu ñuy fàttali yooyu sanga bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam Seydina Mawlana Imaamullahi wax ne ne maa ngi leen di dénk nag ngeen farlu ci topp yàlla ak ab yonentaan mu ne te ngeen sax si feddali seen ngëm ngëm nag ngir nga feddali saa yu nekk dangay ngay jonjoo ak di def lu koy dëgëral te moytu lépp loo xam ne day ràggal ngëm di delloo ngëm ginnaaw ngëm nag la koy dëgëral. mooy lépp lu di topp yàlla ci wax ak jëf ak di déglu waaraatee te di ko jëfe waaye ngëm nag la koy delloo ginnaaw ba mu yonjax mooy di def ay mooy yàlla ci jëf ak ci wax kon nag nanuy suuxat sunuy ngëm ni ñuy suuxate sunuy gàncax mu ne moom sangam ca bi alayhi salaatu wasalaam mu ne na ngeen di jëflante aw yiw jëflante aw yiw nag diggante ñaar jëm kaw ñoo koy def nga xam ne la ñuy def aw yiw la te yàlla tax te ngeen moytu nag di jëflante ci sofaan ya mu di ak mooy yàlla ak i noonee kon nag suñu boroom subhaanahu wa wax na ko ca téeréem ba nee na na ngeen di dimbalante ragal yàlla te bu leen di malante mukk ci lépp xam ne day jur bàkkaar ak ak jalgati sanga bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam wax na ne na ngeen doxale seen diggante cofeel te ngeen xam ne diine laayante biir la nee ne nag ni ngeen xam ne diine laaye biir la laaye biir nag mooy nga laaye biir ñeel yàlla yàlla nga koy tàmbalee teg ca ab yonentaam sallallahu alayhi wa sallam teg ca téeréem ba di alquran teg ca kilifa diine yi nga xamee ne ñoom ñoo taxaw ci ak njub teg seen tànk ci téeréem yàlla ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ak li des ci jullit ñi wax na leen ko ca njàlbeen ña góor ñaar jigéen ña mag naag ñoom ya lay waxal nee na laay biir ñeel yàlla sunu boroom moo di nga wéetal ka maanaam daf ko wax rek boyal kon da nga koy wéetal ci lépp tënku ko ci dara bu doon nga wéetal ko ci nàngam ñu mën a ne leneen mën nga ko caa bokkaale waaye bu ñu la dee wéetalal yàlla dal ji tinki wax ja loolu mooy yàlla ak wéet li ci lépp lu mu mën a doon amul dara loo xam ne niroo na ak mbindeef ku juuyoo la ak mbindeefam ñu tudde xaalafatul xawaadis yàlla dafa juuyoo ak mbindeefam yàlla mel kenn dootu ka lu yàlla def kenn dootu ka def du ko xam jëmmaam aam niroo ko ak mbindéef kon wéetal ko ci lépp leneen nag lu mu néew néew néew bu lee boo nga gaaw tuub te bañ a dee ca loola inna allaha la yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha ah gaañi yàlla nee ne am na bàkkaar boo xamee ne ku ko deewaale duma la ko mës a jéggal kon nañ ko bàyyi xel mooy bokkaale leneen lu dul bokkaale nee na mën naa kaa jéggal ku ma soob ku ma soob la wax nag warluwul ci boppam ne da koy jéggale déedéet waaye bokkaale moom nee na du ko jéggale te itam képp koo xam ne yaa ngi dee ci ak bokkaale yàlla araamal na ci yow aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna ca laa mañ yonte yàlla isa alayhi salaatu wasalaam kon gokka yi li ñuy jëkk seet ci sunu mbir muy sunuy pas-pas mooy nañu wéetal borom bi jalla wa ci lépp te xel ba bu ko bokkaaleeg dara ak yomba ci ñoom tey jii na te mooy bàkkaar bi gën garaaw ci bàkkaar yi ba Seydina Luqmaan di dénk doomam jax as ndoomam la mu ko wax dégg nga yaa bunayya laa tusrik billah inna sirka la zulmun azim xale bu ndaw la muy jëkk jëmbat ci moom mun ko fexeel ba bul bokkaale ak dara loo ko mën a bokkaaleel ci ay mbindeefam kooka lu mu baax baax baax baax lu mu am am daraja ah dugal nga sa bopp ci musiba moo xamee ne suñu borom subhanahu yàllaa fi lu dul yàlla mbindeef la tudd te lépp yàllaa ko bind xaaliku kulli shay moo bind lépp kon nag kenn du ko yemale ak leneen waaye tey yomb nañu lool nit ñi di dendale ak suñu boroom subhanahu wa taala ak riir mënu koo weesu mën a tooñ mënu koo weesu tooñ sa bopp ka nga yaakaar sa diggante ak sa borom bu bokkaale woon ak borom bi jàlla waala yàlla yóbbu ko sawar kon waxuma laay kon nag mu ngoogu ci tënk nanu wéetal yàlla te ku nekk na xool buy dem àllaaxira lan la fa war a yóbbu fexeel ba sawali su àllaaxira bu sa dugal bokkaale boo ko sa dugalee boo demee di nga xeeb sa yaakaar te xeebuwul na waaye yaa def loo xam ne dugal sa bopp ci loo xam ne sa yaakaar mënalu dara donta yonenta la mbaa malaaka la mbaa walliyu la mbaa lu mu mën a doon wallahi ku fa yóbbu bokkaale di nga xam ne yàlla suñu boroom amul ku ko ci ay mbindeefam du xool ki nga koy bokkaalee kan la déedéet jëmmi bokkaale lay xool ndax méritoowul moom suñu boroom ñu di ko dendalee ak len ndax mooy ki nga xam ne moo yeyoo lépp suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu am moom la maa bikum min ni'matin fa min allah xéewal gu mu mën a doon ba ci ni amatul ijaat nga xam ni xéewal ak nga doon zéro doo dara nekk ci lu ñuy wax adam mu jële ci loolu def la ngay dara dellu ginnaaw xamal la lu baax ak lu bon defal la tawfiix nga bokk ci ñi ko gëm aha mu wan la lu baax yoonu baax wi teg la ka nga man caa jaar nekk ci xéewal yooyu ba ni ko uyee ji kooku suñu boroom dong nga moo keneen ku dul yàlla mënut nëkkuy dendalee yàlla ak da nga desee dégg kan mooy suñu borom am moo ci ku am ak dégg ci yàlla wallahi doo ko bokkaale kenn nag mu ngoog dénkaani laa ngoogu jóge ci yàlla ba sayidna bi ne mooy nga wéetal ko ba noppi ba nga defaree sa pas-pas mu baax mooy nga wéetal yàlla bokkaale woo ko ak dara léegi nag jëf day dal di ñëw jëf jaa ngi ñëw ndax diine yépp ci diine lislaam dafa am ñetti maraaxil yu mu jaar muy ñetti étape ba ca jëkk mooy almarxalatul itiqaadiya waxtu wi nga xamee ne pas-pas yi la ñuy defar ba mu baax ñu mën a wéetal yàlla ci lépp bu ñu paree ca loola marxala al axlaaqiya dal di cay topp muy étape bi nga xamee ne dañuy defar jikko yi ginnaaw bi pas-pas ya wéree na jikko ya baax doon makaarimul axlaaq di koy yàlla gërëm yu tedd ñetteelu marxala bi nag muy étape bi mooy al marxala al léegi nag jëf ci door a ñëw jullil wooral nangamal ci ibaadaat mu muamalaat yépp loolu nag ba lañ cee ñëw dañuy defar sa pas-pas defar say jikko ba noppi moo tax ku tàmbalee sa julli di jullee ka or te ñaar yooyu baaxul ci yow da ngay sonna rek ak wuy sonna yi ëllëg nga ñàkk ak wuy ñàkkee nee nga jëfe la mu digale bàyyi la mu tere te nag bu kay ci sa bopp ndax boppa sa boppa amul ci diine da nga koy àggale njariñ la àggale ko ci ñépp mu ne nga digal nit ñi loola nee ne nag laay biir ñeel yonentaam ba sallallahu alayhi wa dem démbaat tey nee ne bu wootee nga gëm ka gën ne moom yàllaa ko yónni ci dëgg mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu lu mu la xibaare ci lu weesu ak lu teew ak luy ñëw na ko ci dëggal ndax yow yaa nangu ne yàllaa ko yónni te loolu moo gën a foor leneen loo koy dëgale waaw muy xabaru sama bi nga xamee ne mooy wax yuy jóge ci suñu boroom jëm ci moom muy kumpa ànd ak ay kéemaan yu muy wane ngir saxal ne mooy rasulullah ndéem man nga kaa dëggal ci loolu gëm ko ci loolu kenn leneen lu ñëwati waroo ko caa weddi waroo caa werante ak moom da nga ko ca war a dëggal ginnaaw bi nga ko gëmee waaye itam nga topp ko ca yemu la digal bàyyi it yamu la tere léeg-léeg nga dégg ko ne loolu de sunna la rek i waay sunna la rek sunna dinañ ko rekku ak a bari ci ñun ba si jàngalekat yenn yi sax déedéet loolu sunna la rek waaw loo xam ne sunna la rek lu tax ñu naan rek rek sama borom ba wa jalla wa ala am ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon mu neeti maa wàccee ci yow téere bii ngir nga leeral nit ñi li nga xam ne moom laa wàccee ci ñoom lu tax ngay rekk sunna loolu tamal nañ ke ñu bari te jàngalekat yenn ñooy def loolu ndax réer gu nekk ci ñoom ci yàlla musa mu ne kon na ko topp ca lam la digal bàyyi la mu la tere itam te ngay jëfe sunnaam da ngay jëfe sunnaam muy sunna ja mu jëf ak sunna samu wax ak sunna sa nga xam ne keneen moo ko wax mbaa mu jëf ko ci teewaayam mu saxal mu ne kon laayante biir ñeel téere ba di alquran alkarim mooy nga jàng ko nag dëkkee di ko durus di ko settantal di xam maanaaya ngir mën koo jëfe te ngay jëfe la ca biir kon boo xamul maanaay alquran nooy jëfee la ca biir loolu mënul nekk foog nga di ko seet di ko settantal di xam maanaaya di toj yax ya waaye bu mu doon ci sa xelam bopp da ngay seet koo xam ne yàlla ubbee na ko mu ragal ka bu boobaa nga di ko déglu mu di la waxal li nga xam ne mooy téere bi di la ko leeral bu jógee ca loola itam nee ne laay biir ñeel kilifay diine yi nag kilifay diine waxuñu kilifa goo xam ne ay aadaa la fi teg ak yu deme noonu déedéet kilifa diine bari na luñ koy utiliser di ko jëfandikoo te moo ne lu jafe la da kilifa diine goo xam ne mu nga teg tànkam fa ko yàlla sant teggu ko mukk toppul bànneexam toppul àddina exploité wul ay taalubeem di jariñoo seen ñaq di jariñoo seen doole di jariñoo seen waxtu di jariñoo seen alal kooku di kilifa diine déedéet ngir boppam amaa nag lu jëm ci yàlla subhanahu wa taala waaye lu génn yàlla moom ngir yëfi boppam kese kese addina yi boppam bu boobaa déedéet bu ko ca topp ndax kilifa diine kat aha da nga koy mu ngi topp yàlla nee ne laay biir ñee kilifa yi diine yi mooy nga nga nga soppale ndax nit ki boo ko laa toppa doo ko ba noppi koo bëggul noo koy toppee déedéet da koy ëmbal cofeel ba noppi di ko topp ndax ki ñi contre kilifa yi diine yi nekk ci réew mi ak ñu topp kilifa yi diine yi déedéet contraire bala ñuy def ñu nga toog di leen saagaak di leen ŋàññaak ak yu demee noonu ndax bëgguñ leen moo tax na itam bul yam ci loola waaye na nga leen di dimbali di leen jàppale ci seen mbiri diine diine dafa diis kenn mënul demal sa ci yonente yi sallallahu alayhi waaye yàlla moom moo la daaral dimbaleel ak dimbalam boppam waaye moo jël jullit di ànd ak yow fooy dem ànd ñoom ñi di la jàppale looloot yàlla la ko dimbalee yow rek mënoo dem kooku yàlla dong nga ko man du ko may keneen nee nag nee nga jàppale leen seen mbiri diine la wax amaa seen mbiri àddina bu sax mooy yàlla nekkee xaraam na nga toppaleen bu fekkee mooy yàlla nekku ci yow yaay xool waaye boo ko ca toppee itam bu mu la sànkalu waxtu yàlla bu mu dox sa digganteeg jaamu yàlla mukk na doo def dara lu baax doo ko wax yaakaar ne sëriñ bi mën na laa jàlle ëllëg yaa ngi ciy nax nax nee ne nga digal lee nga jàppale leen si seen mbiri diine waaye itam bu mu yem ci yow mu neeti ba tey na nga ko digal nit yi mu ne laay biir ñeel mbooleem jullit ñi nag ginnaaw ñooñu ne mooy bu ëmbal leen cofeel ñoom ñëpp looloo jafe ci ñun tey kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxa démb sayyidina mawlana muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee ne jullit daal day soppa ñi da du bañ kenn ci ñoom ku ne ci ñun na nattu boppam ci loolu bañ sa bokkam jullit bari ka ko won ci jëf ak wax ak ni ko bi sallallahu alayhi wa waxe démb sallallahu alayhi wa sallam nee ne dëgg-dëgg jullit bi daal day soppa bopp jullitam ni mu soppi boppam loo bëgg bañal sa boppa ci lor bañal ko sa mbokkam jullit waaye yéene sa boppal lu baax yéene woo ko sa mbokkam jullit ah ala kulli xaal loolu moom li des na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na démb ne bu leen bañante te ngeen sax si diglanteel aw yiw te ngeen di terante lu bon te ngeen yéwénal seen diggante ci maaru bu ngeen amee yàqu-yàqu ci seen i diggante ñi baax dox loolu mu rafet wa yenn émission télévision yi dal ci kaw kooku di wax ne maara day taal beneen émission ba ñëwati sa sa plateau aha nga oowati keneen waa diwulim wax sew loo koy tontoo dina am sax ku naan loo koy tontoo mu toog di wax ci moroom jullitam loo xam ne kenn antanu ko ak njabootam di famille di ko déglu mën na caa jóge sax duggal ak yeneen ak yeneen ay émission télévision yi ngay gis ñu ngi ci rambaaj boobu guddi ak bëccëg yu ci bari ci journaliste yooyu loolu la ñu nekk waaye nañu xam ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yadxulul jannata ab rambaaj bu dugg àjjana boo ko ornee nag jekka-jekkal ka mu doon émission télévision loolu da lay yokk musiba ndax ña lay seetaan bari na loolu yii yëpp nag musiba la ci yow bu fekkee la ngay wax du baax kon nag ña yor métier moomu ñeew ma ñëpp de waaye ñay def émission yooyu fekk ñaar ñoo xam ne dañu réeroo ngay yokk ca taal ba essence boo invité ki kay o léeg-léeg sax mu naa ah bul yàq sama émission boo bañee wax bul yàq sama émission maanaam gi bañ xas xas ko baykale bëggul a xas ma rooma mu nekk yaa ngi yàq sama émission bëggul wax si moom lu baax mën ko nag lii taxuloo nawet bi yaa ngi yàq sa mais bu yàq suñu émission ban émission loolu mu sibal kooku rambaaj la lu mu mën noo ko mën a tuddee ab rambaaj pire la te bu deewee yoneen bi nee na du dugg ajjal kon nag laaj Mamadou nee ne bu leen def moom sallallahu alayhi wa sallam nee bu leen bañante di leen diglante aw yiw te ngeen di terenteel bon te ngeen yéwénoo seen diggante ci njëkk la gënoon mooy yëg nga ne ñaar ñii dañu réeroo àddina képp a ngi lay seetaan oo kii oo kii nga jubbale la gis ñu nuyoo saafonte waxante jàmm ah waaye dégluwuñu yenn émission yi laay wax wu ma ñëpp de dégluwuñu lu del musiba mu ñu dégg si diggante diwu ak kii muy wax lu bon ci kii ñëpp di seetaan loolu sax seetaan ka dafa daganul métier du baaxal lu yàlla bonal lu bon manu la bonal lu yàlla baaxal lu baaxit manu la baaxal lu yàlla bonal bal dëkk yokk ay musiba ndax ñépp a ngi lay seetaan kon nag ñoo ñuy def loolu ci seen émission pour neexal seen plateau nañu xam ne li leen di xaar ëllëg mu ngi ci suñu kanam te sallallahu alayhi wa sallam du waxantu kon rambaaj baaxul diggante jullit ñi nañ leen defar bu yàqoo rek nañ ci dox dox bu rafet waaye bu invité kii di xam ba kii si kawam kële nga xam ba ka si kawam wala nga wax loo loo xam ne ci kaso la jëm bari na ku dëkk kaso émission télévision ko fa dugal loolu musiba la xanaa kooka dina am gàcca ki nga invité woon dugal ko bëggu la wax ba mu wax wax jën nag faf nag dugal ko ci biir kaso loolu yëpp ay musiba la laay muxtaar nee ne maa ngi leen di dénk jëmbat seen diggante cofeel mais ndax waa àjjana dañu soppante àjjana ku fii nu ñuy duggee àjjana àjjana kat foofa soppante fa am nee na nag bu leen doxal seen diggante ak nooneel ak ak mbañeel te ngeen doon ay mbokk te ngeen xam ne jullit jullitay mbokkam yàlla sunu borom wax na ne nak jullit ñi de ay mbokka lañ ay mbokki kese lañ moo tax seen salaatu somb ñooy nañ ñëpp sant laal nañ jël askani seen bopp yàlla mu jeex ñun ñëpp ay jullit lañu waaw kon dara lu leen di texale teg leen këfale te ngeen bokk gëm yàlla askane seen bopp ci moom te xam ne yàlla mooy cosaani lépp lu mu mën kon nag nee ne ni ka suñu borom ba jalla wa ala waxe nee ne naka jullit ñi ay bokk lañ na ngeen yëwénal seen diggan diggante bokk gi te ngeen ragal yàlla ndax li ëllëg yàlla yërëm leen loolu mooy dénkaan yi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam yu rafet yooyu yu tënk yooyu maanaam su nga ni ma guddale waaye noonu mu loolu ma guddal ak tënk la ndax lii muy wax baat bu ci nekk mën nañ cee taxaw lu yàgg boo ci alxuraan bi fa fekk lépp yal yàlla sama borom ba yokk leeram yokk nañu lan taa suñu barke allahumma salli wa sallim du ñàkk ñu wax ci nangam bëgg yeewoo man nga yeeweeku ndax bés ci tey bii dafa bokk ci bis yàlla suñu borom ba subhaanahu wa taala ñu tudd ka iidul adha jaajee it nekk fële te baytullahil haram di fa jooxe seen jaamu yàlla ñun yàlla séddanu li nga xamee ne moo di bés bii di bésub tabaski ñu wartatee jaamu ngir dekkal sunna suñu maam ibrahim alayhi salaatu wasalaam ak doomam ja ismail alayhim asalaatu wasalaam waaye itam mu wàcci waat ci sangabu tedda bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defaat joxaat ko ko moom itam ci yoonam wii muy diineem ji di lislaam nga xam ne moo tëj diine yépp kon yont yàlla ibrahim ak yont yàlla ismail mbir mi fa la tàmbalee si ñoom ngir jëfe li nga xamee ne mooy digley borom bi subhanahu wa taala ba mu waxee ak doom ja ismail inni ara fi lmanaami anni asbaxuk fanzur maza tara koo xamee ni amul doom ba am juróom-ñett fukki at di xaar doom di yaakaar doom yàlla may ka doom ba mu dëgër yàlla ne ko rendi ko waaye xoolal googu muñ doom ja ci boppam ñëwati andi muñ boppam nekk yow sama baay yaa abati faal maa tu'mar satajiduni insha allahu min as-saabiriin maa tu'mar la new daf ka ne yow sama baay defal liñ la digal newul nga gént wala li nga gis déedéet dafa xam ne gént ak yonente yi ndigal la wax yu la waaw ba nga xamee ne nag ñoom ñaar muñ nañu ba Seyduna Ibrahima alayhi salaatu wasalaam jël ko dëpp ko bañ a jàkkaarloo ak moom aha ci gàttal bëggul ñoom ñaar ñuy xoolante ndax ñeewant ak waajur ci doomam aha mu dëpp ko dal di dawal paaka bi waaye nag yàlla moo gën a gaaw loolu mbiram moo gën a gaaw loolu yónni malaakaam bu dal di diri Ismaayila dugal li nga xamee ne moo di kuy mu mag mu dawal paaka bi ci kutëb kuy moomu dal di koy rendi rendi palaasu Ismaayil alayhi salaatu wasalaam kon ci gàttal rek ndax waxtu waa ngi dem loolu cosaan la ci bés bii sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee suñu borom ba subhaanahu wa taala dégg ngeen ko sànq si ka wax na inna aataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al-abtar man de maa la terale kawsar mu ëpp déeg ci aljana kon nag fa salli li rabbika wanhar jullal sa borom jullil te yàlla tax wanhar rendil te qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lahu sama julli sama rendi sama dund sama dee lépp yàlla laa ko jagle amul ci dendandoo moom suñu borom kon nag laay maxtaar loolu cosaan la ci anas ibnu malik radiyallahu anhu wax na ne doxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kabsayni amlaxayni aqranayni zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabar nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon tëmëskee ñaari kuy ñaari kuy ak ranay yoo xamee ni ay bijjin lañu am weexaay ba ca ñoom moo gën a bari ak ay ñuul ñuul yu ca nekk moo leen rendi ci loxol boppam moom sallallahu alayhi wa sallam mu dal di wax bismillahi allahu akbar kon loolu cosaan la ci moom nag loolu lañuy soxal ba léegi di dundal ci dësëb tey bii kon nañ ko sellal salli li rab la wax wan fa qul inna salaati wa nusuki wa mahya lillahi rabbi ak tey tabax la ñuy dawal lépp ci coobare borom bi subhanahu wa taala ci kanam waaye jotaay bu nekk ak xew-xew bi muy tuuti luy faral di am mu ñaaw fii laa taxawoon yàggul yàgg na yàgg na yàgg moo di feebar bu ñaaw bu bon bu ñu ooy naa si amul si diine dangay saxal la ngay wax saa yu nga taxaw wax ci yàlla wax wax ca la booy taxaw bi ci wax diis diis nga yëg boo xamee ne yàlla rek ko ko xam waaye ndigalal yàlla tax atte yàlla kenn mënu koo nëbb la nga bëgg la ngay bañ lépp dangay ngay taxañ teg si suuf dal di wax mbaa nga jëf li yàlla digle subhaanahu wa taala muy musiba moo xamee ne mu ngi gën di xóot ci sunum rek yéefar yaa ngi gën di dox pour tooke suñum réew contaminé nañu maara day taali def ko suñuy njaboot moo tax ku ci nekk ci ñun war na bàyyi xel bu moom ba ngay dégg waxuma la ci at waaye ci nangami at waaye doo ci dégg mu bunte bi lu tax kenn xamul lu tax koy moytu koy moytu ci loolu kan ngay moytu fii ku ñuy moytu amu fi ki ñuy moytu mooy rabbul alamin waxal li nga war a wax te mooy feebar bi gën bon buy dal doomu aadama moo tax sallallahu alayhi wa sallam xam gu mu ko xam ak xam gi mu xam mbokkam ma yont yàlla luut alayhi salaatu wa boroom natt bu rëy ba boroom muñ nga moom mi ci biir góor jigéen mu wax si xadiisu jaabir radiallahu anhu inna axwafa ma axaafu ala ummati amalu qawmi luut bu ci faale kenn bul sóor kenn wax ci num la lu may ragalal si sama nit yi yont yàlla luut ya góor jigéen ya mu ne yéen li ma leen di ragalal mooy ñu def leen ay góor jigéen wala ay góor jigéen feeñ ci seen biir musiba mënu kaa gën a rëy jëf mënu gën a ñaaw moo tax yont yàlla luut jàmbaar la dëkk la ko góor jigéen fii rek benn fan ñaari fan waaye kooka nekk ci yooyu at ak ñoom ñuy jëf-jëf yoo xam ne kenn mënu koo nettali yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ne li mag leen gën a gën a ragal moo yoon mu waxati si hadis ibnu abbas radiallahu anhu mu ne laana allahu man amila amala qawmi loot laana allahu man amila amala qawmi loot laana allahu man amila amala qawmi loot qaalaha talaatan mu ne yàlla rëbb na képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo jëf ja nga xamee ne nit yont yàlla yuut luut ya moom lañu doon def muy ak ngóor jigéen nee ni yàlla rëbb na ñetti yoon la ko wax ñetti yoon nee nañu bàkkaar yu mag yi yàlla rëbb yépp yonent bi di ko nettali amu ci benn bàkkaar boo xam ne yonent bi wax naka lu dul dafa rëbb benn yoon waaye ba mu egsee ci li nga xam ne moo di ak ngóor jigéen dafa baamtu ñetti yoon boo ko génnee ci benn xadis bu gudd dama koy tënk rek ci jàngat bu gaaw dafa wax ne laana allahu man zabaha li gayrillah laana allahu man xayara tuxuuma al ard laana allahu man kammaha ama an sabil laana allahu man sabba walidayhi laana allahu man tawalla gayra mawalih daal di egsi nag ci ki nga xam ne mooy ngóor jigéen xam nga yii paase nii bu ci ne benn rëbbala la kay rendi te yàlla taxul rendil keneen ku dul yàlla ka nga xamee ne day fekk mandarga yi ñuy xàmmee suuf si mu dal di ko dindi jaxase ka ba xeex am ba fitna am moo xam si frontière la moo xam ci ñun la piquet yaag yooyu nga dindi jaxase yi fi jàmbu guerre am fa leneen am fa nee na kooku yàlla rëbb na ka kazalika naka noonu aha ki nga xam ne moo réeral silmaxa ba mu wàcc yoon wi mu waroon a jaar nga jaaree fa yoon mu koy lot kooku rëbb na ko noonu la koy noonu la koy ko waxe noonu ba egsi nag ci kenn xam ne itam moo rëbb ay waajuram ŋàññi ay waajuram kooku yàlla rëbb nag ah ak kii ménga boppam ci ñoo xam ne waru leen a ménga kazaalika ba mu egsee nag di daaneel ci la wax ñetti yoon ne ah yàlla na yàlla rëbb wala yàlla rëbb na kuy jëfe jëfi waa kër yoon ci yàlla boobu yàlla rëbb na kuy jëfe jëfi waa waa kër yoon ci yàlla loo yàlla rëbb na kuy jëfe jëfi waa kër yoon ci yàlla loo salaatu wasalaam ñu ne ñetti yoon poste ñi nga xamee ne ñooy atte nit ñi di gouvernement yeeg nguur yooyu moo xam fii la ci ñun moo xam feneen la bu ko jëfee gàllu na seen loos bu ko jëfewul gàllu na seen loos dañ leen koy laaj bul dem nag sa yàlla naakaan laay stéfa nekkoon boo demee boo fooxee loolu di nga xam ne yàlla buur lu dul aw lay aw lay yàllaa koy joxe du doomu aadama koy créé déedéet aw lay yàllaa koy joxe loolu nag kenn duñu taxawal ëllëg naa ñoon lu tax reyu leen a góor jigéen lu tax def leen nang déedéet loolu dañu koy ter raamal ci ñu waaye kañ ko gàll ci aw loosam bu amee ñeenti seede moom mi nga xam ne mooy njiit ba ak ña koy exécuter nañu dowal téereb yàlla ci moom kooka la waxal waaye du population koy duy continuer di araam ci population bi kenn du fajal sa bopp ci sariya yàlla amul kon mu ne man wajatumuhu yaamalu amala qawmi luut faqtulul faaila wal maqmula bihi képp ko xamee ne fekk ngeen ko muy def ak ngóor dawal ci kooku at yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam kenn du la waaye wax naa leen ñan lay wax kon du si ñun kenn sañu kaa def déedéet moom sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci xadiisu abi hurayra radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam fi alladi yamalu amala qawmi luut qaala urjumu al ala wal asfal urjumuhuma maan aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yëpp xadiis wéer nee ne abu hurayra mu baax ma nee ne dafa jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci koo xam ne day jëfandikoo ngóor jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko xamal jaam ñi ne leen maanaam bu fekkee ne am nañu seede ya ñu war a am bu boobaa nag mu ngi wax ak ña nga xam ne ñooy autorité mu ne na ngeen leen jam ba ñu faatu maanaam jam ay xeer ba ñu faatu comme leen yàlla suñu boroom defoon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kenn ku dul ñoom ku dul yonent bi sañoo kat sahaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal du ma dugg ci teqale ndax waxtu yi may ñu ko xisab yoon ci yàlla luuti ah duñ ci mën a dugg di ci yaatu waxtu yi may ñu ko waaye li fii liñ fi wax mooy acte yi nga xam ne moom la diine ji dawal fii li nga xam ne mooy musiba mu bon moom sallallahu alayhi wa sallam dama ne ki ci kaw ak ki ci suuf taxawal leen ci ñoom téere bi yàlla saaba yi nag ba mu ñëwee ginnaaw am sala ci ne kooku kat ni ko yoneen bi waxee dañ koy rey waaye reyin wax foofa nag dañ ca uute ñuy wax lii ñuy wax lii ñuy wax lii jarul may dugg ci yooyu waaye na la doy ne la moom de li yonent bi wax loolu la ñuy def waaye reyin ba ñoom sela ñu wute loolu mooy atte jàpp maa yi ñëw seen ginnaaw itam na bari ñëw na maanaam mas na jaar ci sëy ñu jébbal ko soxnaam wala ñu jébbal ko borom kër moo xam nga ca wala nekk sa kooku mooy ko sangew nee ne moo xam sangew na moo xam sangewu célibataire la wala marié la bu ñu ko jàppee ñoom ñaar dootuñu xool kii marié la am du marié mas naa sëy mësula sëy ñoom ñaar ñëpp la ñuy boo bokkal taxawal ak teg yàlla ci ñoom wax jullit ñi kon loolu mooy wax ji gën am len na ci ñoom ne attem njaaloo la ñuy dawal ci ñoom bu ñu sangee ñu ñu sangee wu ñu dóor leen téeméer yar loola wéru ndax dëppoowul ak hadis ba léegi ma dégg léegi ci Abi Hurayra nee ne na ngeen jam ki ci kaw ak ki ci suuf kon nag am dañ koy taasir i yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ca wax saaba yi loolu lañ ca wax kon di ndax sa booba ngir ñu bañ a daanu ci ngóor jigéen boobu si won leen luy yoon xamal leen diine ji xamal leen kitaab ak sunna muy alquran yàlla ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aar leen ci nga xam ne mooy sànkaate tey jii waaye leen ñu wandoo yu leen neex di neex même kër gi yonente bi sallallahu alayhi wa ba ngay doon ndaw la ne tàmbali yar say doom ci lool mu dal di wax moom sallallahu alayhi wa sallam ne muru awlaadakum bis salaati wa hum abnaau sab'a sinin wadribuhum alayha wa hum bay asr wa farriqu baynahum fi lmadaji mu ne na ngeen digal seeni doom julli bu ñu amee juróom-ñaari at na leen ca dóor bu ñu amee fukki at te ngeen teqale leen ci turuwaay gis nga gis nga moom jàngale xale yi bu ñu bokk fu ñuy tëddee di tencaloo gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam vision bi mu am teqale leen leen ca fa ñuy fanaan fa ñuy tëddee sallallahu alayhi wa sallam ñu dugg jigéen lesbienne sallam wax na ne pour moytulooñu loolu laa mu dal di wax ne laa yanzuru rajulu ila uriyati rajul wala almaratu ila uryati almara wala tufdi alrajul ila alrajul fi sawbin waxid wala almaratu ila almarati fi sawb mu ne góor bu mu xool raflek moroomam góoram maanaam dara waru ko si plage yeeg yooyu di xoolanteeg yooyu yoneen ne bu leen ko def seytaane dafa bari doole te ci yooyu lay jaar ci beneen riwaaye uryatul rajul maanaam bu fekkee ne dafa rafleel boppam ci ay càngaay benn la wax ja ñii ne awra aw euh, urya waaye ñaar yëpp wér na mu ne déglul bu baax wala yufdi rajulu ila rajuli fi sawbin waaxid wala al maratu ila al marati fi waaxid nee ne góor ak góor bu ñu bokkandoo mel na malaan doo koy gis si ñu léeg-léeg sax nga kiloot la sol ñoom ñaan sol kiloot ba noppi tëdd si benn mbàjj seen yaram di laalante yonent bi ne laa yufdi rajulu ila rajuli fi sawbin waahid waa kër gi ñu am ay njaboot nañu bàyyi xel loolu bul ne ay xale la ñoom nang déedéet déedéet fa la gën a bon waaw te seytaane dafa doy waar tarbiya bi sallallahu alayhi wa sallam sawtin waaxid góor ak góor bu ñu dem di jonjoo ci mel na malaan beral li fële ma baa jot berka ak malaanam boppam beral ci malaanam boppam waaye demee léeg nga gis ka ci yu mel noonu wala nangam ak nangam bu ñu daje benn néeg nekk doo fa di attaaya ka meew waaw ba tëdd jot ay góor yi lëmm ñiy soli fulataag yu ma xam ñëpp a dal jël même na ma laa dugg ci biir nga di ka gis ñooñu amuñu dégg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ne lay am kon nag yóbbal ak baa ngoog ci njaboot yépp ngir ñu musal góor jigéen mu ne itam am na lu ñuy tudde itam ci ñun mooy góor jigéen bisi si te boobu itam mën naa doon bële waaye góor jigéen ñun fii niñ koy woowee léegi mooy ci jëfinu jigéen ak di ànd jigéen ñi léeg-léeg ak di wëndeel ay bët ak xeet yooyu ñun kooka la faral di woy góor jigéen nga gis koo xam ne ku musculé la ku réet sikkim nga jàppe ne kooku mooy góor biir te fekk na kooka mooy góor jigéen ndax borom góor jigéen jëf la gis nga bari na koo xamee ne day wax di nooyal ak yooyu jëmul foofu dafa yoroo ci ay jigéen aha ñoo koy xam nga jigéen ñi yëpp ñoom de ñooy def lépp ak parents yi bul jël sa doom dugal ko si biir jigéen ñi fu ñu jëm jëme ko muy toog ci seen biir doo ko yóbbu sa moroom yi góoram kooku léeg-léeg loolu dina ko indi mën na doon du mën na doon leneen waaye bii lislaam di waxtaane alquran di ko waxtaane ci waa Kër Louga alayhi salaatu wasalaam mën na doon ku ne comme li ma la ko waxee mën na doon ku ne kooku nag di nooy nooylu bu ca boolee loolu. waaye terewul ñun fii góor jigéen lañ koy tudde waaye ya yonent bi sallallahu alayhi wa ci góor góor gu nooy boo xamee ne boo seen jigéen mu ne dañuy topp di watu watuy góor mu ne yàlla loolu lépp dénkaane rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu bàyyi ko xel ndax yooyu day raam te ne xam na ko mu mu ne la ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al rajula yalbasu libsatal mar'a wal mar'ata yalbasu aw talbasu sallallahu alayhi wa sallam di poose ay yu xamul di sol ay colin yoo xamee ne maara day taali jigéen ñi ñoo koy def mu ne kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bënn ko waaye itam nee ne rëbb na jigéen juy sol colinu góor ak a fee bare daanaka sax du ñu aisé wu léeg-léeg surtout jeunesse bi fekk soluñu soluñu góor di wax waxinu góor di dugg ci góor ñi ak di def yu ni mel ñooñu ñëpp nañu xam ne yàlla rëbb na leen ci làmmañ yoon ci yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki jullit yi loolu ab yóbbal la du ma dugg ca détail ab yont yàlla lool ak waa këram ndax waxtu wi teewul waaye la yàlla def ak ñoom dégg ngeen kon yonent bi sallallahu alayhi wa bañal ñu loolu ñun nañ ko bañ te moytu ko jël sunuy matuwaay te itam li ñu tudde allootiyatu suxra ngóor jigéen bu ndaw mu ngi am ci diggante jigéen ak góor ñaar ñuy sëy bari ndax lislaam buy wax sa diggante jabar ak jëkkër lay wax këli moom faale ko bay wax ak moom jaaloo kan moom waxu ñoom mu ne allu mooy ki jur soxnaam di sëy ak moom ci anam gi góor jigéen yi sëy fa ñuy deme aajo nga jël sa soxna di ko jëfandikoo anam bu mel noonu mu ne laa yanzuru la ila rajul yàlla du mooy sawara bi kan mu ne góor goo xam ne dafa àgg ci moroomam góoram ci ginnaaw ak góor goo xam ne la'anallahu man atam ra'atahu fii duburiha yàlla rëbb na képp koo xam ne yaa ngi bàyyi la la yàlla bindal ci sa soxna nga war faa séeg moom doom di fa am nga dem fu doom dul am mel ni ku ñëw fii si tefes bi di fa gas pour gerte ñor fa te di ko suuxate neex nii looloo tax yàlla rëbb góor jigéen yi ndax góor góor du jur dara moom nga dem fële jëmbat sa tefesu géej gi bu doon góor ak góor ñi boppa jigéen ak jigéen doyloo seen boppa dee mooy am waaye du am jeex la mu wala déet mu ne yàlla du kersa woo wax dëgg bu leen dikke seeni soxna fa góor jigéen ñi di dikke seeni morom yu góor yi yal na nu yàlla sama borom bu musal ci musiba moomu yal na yàlla musal ci jaboot yépp fii ci sunum réew képp ku ci sa loxo nekk yal na la yàlla rëbb adduna ak àllaaxira ndax yonent bi moo la rëbb alal birri waaye bu leen dimbalante ci aha lépp luy bàkkaar jalgati na mu def waa kër yonent yàlla luut dégg ngeen kër seen moom suñu borom jaare ko ca malaaka yi Jibril ak ñu mu àndal ba noppi xaaju na ci seen kaw ba noppi di përñi seen ab dëkk ba noppi sànni leen ay xeer yu tegaloo xeer bu ci nekk saw si ci la jóg tàng jër te bu ci nekk dañ ko màndargaal mu dugg ci borom alak ba jabar yoon ci lu ci ñooñ la yàlla muccal ko ci musiba moomu na mu ko ñaane woon kon lay Mamadou Makhtar loolu bu ko kenn maye ci ñun réew képp ku ci sa loxo nekk yaa ngi ci biir rëbb gi te sama borom ba dafa wax ne wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira man de ku ma xës rëbb kenn mënatu laa dimbali yàlla na ñu yàlla defal jàmm yàlla defal jàmm yàlla na ñu yàlla defal jàmm الله أكبر الله